yéen yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la santeen ci yàlla bu baax jëgn ci kenn mag secret ba secret baa bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek euh, xasida googu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 wa billazi ak ci barkeb ka nga xamee ne saba dana sotti almatar taw yare fa suux kon yàlla na nga màngal lii jëmee ci man biima ci seen dar ji ñoom ñaar ñooñee te mooy yonent bi ak mikaayila alwatar mboolem samay ajib yàlla na nga ko màngu jëmee ko ci man ci barkeb mikaayil ak yonent salaay salaam waaye yàlla nanga xam ne jamono ju nekk ci yow rek lay jublu waaw ah, yow rek lay jox sama lépp de yow rek lay jox sama jëmu de waaw di ko jaaree ci barkeb mikaayil ak yonent salaay salaam mu dal li nga xamee ne mooy israfilu ba tey gannaaw bu mu génnee ci mikaayil la ndax israfilu moo ci tobu mu ne anil niyal busra ma nusuri bi naafiqin yowmal jawaafi sóori suxli bihi munaaya saa suróori bika bila makrin wala xuróori mu ne yàlla anil niya nag ma may albusra mbégte ma nusuri ànd ko ndimbal ya bi naafiqin ca ka nga xamee ne ci barkeb ka nga xamee ne mooy aji wal waaw waaw ba a ah, mooy aji wal fii sóori ca bëftu ba yomal jawaa ca bisum njàqare ba de israfilu mooy ki nga xamee ne moom la yàlla digal a ah, mooy wal bëftu ba ñëpp faatu yàlla a ah, bam soob yàlla ñi nekk ci biir bàmmeel di nelaw ñeen fukki at yoo xamee ne yéeféer du yëg mbugal jullit ak yéeféer ñëpp ci am a moo tax nga dégg ci alxuraan yàlla nee ne saa bu ma digalee israfilu mu wal bëftu ba ñëpp dekk jëm pincam yàlla foofu ci nelaw yi neex la ñu nekk moo tax dañuy wax naan yaa place bu neex bii ñu doon nelaw ana kan moo ñu fa yeede waaye dañoo waroon a bàyyi ñuy nelaw rek foofu nag la ñu commencé nag yéeféer ñu commencé gis njàqare waaw jullit ñu commencé gis mbégte waaye bu dee ca nelaw yi moom yéeféer rek jullit ñoo ca yem de kon Israafil mooy ki nga xam ne jamono ji bu doon am mbib muy ab seer maanaam ŋànk na ko ci gémmiñ gi yàlla rek lay déglu bu ko yàlla na ko pip wala rek adduna tukki bu walee rek adduna tukki waaye moom fu ne ndigal rek lay déglu de waaw du xutu mukk wal ko to jotagut de bu ko waloon itam yàlla joxul ko ndigal nit ñi duñ faatu de waaye bu ko yàlla joxee ndigal rek bu ko walee faatu de waaw lu nekkoon ci àdduna yëpp daal di fee bay ko de mu ne ko andil ne danga ma may albusra mbégte ma xat nu sóori ànd koog ndimbale ca dara jaay nga xamee ne waaw mooy aji wal fi sóori bëxtu ba yomal jiwaa ci bisum njàqare ba waaw jàng ci xasida ko tudd muqaddamatul amda Sëriñ Tuubaa ne yu amina kulli yama fii sóori yun foxo bis ba nga xamee aaw ah, suñu borom dana digal israfil mu wol bëftu ba ñëpp dekki jëm penc bi yàlla képp ku bokk ci man da nga am sécurité aaw ah, doo am lenn lay jaaxle genn njàqare doo ko gis de kon anini yal busra ma nusur bi nafiqin yawmal juafi sori soxna nga màngal li jëmee ci man aaw ah, ndimbal moom aaw fu ne lañ ko soxlaa waaye rawatina nag bis ba nit ñi da dekki foofu moom jullit dëgg-dëgg foofu lay bëggee ndimbal de mu ne yàlla kon nag ma may mbégte aaw ca bis boobee nag ma may dimbal ca bis ca bis boobee ci dara jaay ki nga xam ne mooy kii wàll buftu ba aaw bisam njàqare ñëpp dekki jëm pencam yàlla moo tax ne sox yàlla na nga màggali jëmee ci man bii ci barkeb Israfila mun naay samay mbibét a suro saa suroo li mbir moom mooy borom mbégte bi ko ci yow bilaa makarin ci lu mennam pexe wala xuróori wala ak waru de yàlla yàlla na nga màgg jëmee ci man ci dara jaay ki nga xamee ne mooy Israfila mboolem sama mbébét yëpp na nga ko màgg jox ma ko ndax su ma su ko defee ma tëqoog mbégte du ma tàggoog mbégte mukk heure bu ne ci mbégte rek aw sama diggante yow mbégte rek moo ci xaj mbégte rek moo ci nekk waaye safaanu mbégte du ci nekk te mooy naqar aaw tam mbébét boobu nga màngal jox ma ko tax ma tëkkoo mbégte man sëñ tubaa kooku doo ko def mukk di ma ci pexal wala ma ci séntu ak waru de aw yàlla kon màngal ma mboolem samay mbébét yëpp ci daraja israfila su ko defee ma tëkkoog mbégte te mbégte gi yëpp sama diggante ci lay nekk de aaw te mbégte ak lag may màngal di ma ko jox dafa ma ko ngir pexal ma ko wala ak waru di ci biir déedéet ndax yàlla waxoon naa la dana defal dara ak jaamam fekk da koy pexal rek ah waaw loolu ñuy wax ndëgg sërëx am na ñoo xam dañ naan la dëggal fi boo dëggee fi rek surox ah yàlla léeg-léeg ah da koy def ab jaamam de léeg-léeg nga defee ne yaa moom mbiri yow la nga naan ana ana mana mana te li gën a bon ci nit mooy mana nit boo demee banaan naan mana rek ko mooy ki gën a ci nit ñi de waaw ah, te fekk du yow de ak waru rek waaw ah, moo nekk ci loolu de rul yàlla na nga tàggatali ñeel ma bii ci barke israfila al a mboolem bi ci ka sóori ni ko weer yi wama asaaw ak lépp loo xam ne danaa ko bëgg min ko ceew waaye nag saa waaw ah, saa tuxóori mbir moom may borom laab de yàlla yàlla nag ma tàggatal ki nga xam ne mooy darja israfila mboolem bis yeeg weer yëpp nag ma leen tàggatal ba seeni loor nga musal ma ci seeni njëriñ nga jox ma ko ta may def ci seen biir mooy lu baax rek niñ ma seedal lu baax bis yeeg weer yëpp ci am waaye lépp lu ma bëgg caw yàlla naa tàggatal ma ko moom man cee jot ci anam boo xam ne bu yomb la taru jafe de waaye nag yàlla nag ma def may borom laaf fu ma toll de waaw daa mel ni téere yi lu ñu indi waaw am na yu ma gis ñuy indi suxóori gi tekki saa suxóori mbir moom mooy borom ak fës de waaw may borom feeñ am na yu indi ba tey saa mu bay ko ci taxara guy guy tekki làpp waaye loolu mooy max naa bi gën a dëppoog bayit bi de saa tuuri may borom làpp ndax su ko yàlla tàggatalee bis tàggatal ko weeri tàggatal ko lépp lu mu bëgg fa yàlla su ko defee dana làpp ba set wicci ci si biir bis yi ak weeri ah waaw ah bu ko yàlla di jox itam aw la nekk foo moom muy bay ko ci yàlla di ñëw ci sëriñ bi day fekk mu làpp kon rul yàlla nga tàggatali bi ci barkib Israfil la al ayaama bis yi ka suxóori ni ko weer yi wa ma ak lépp loo xam ne danaa ko bëgg min ka ceew saa tuxuuri mbir moom may borom laab de awa ah, ab xaytani yow yàlla yaa ma fi saxal rabbi yow sama borom bilaa suboori ci luru toskore su luru alkande aw ah, awa ah, wa nasri ak dekki ga wal xasri ak pang ga maxal xubóori ànd ko bàmmeel ya kon mu ngi noonu ndax israfila mu ngi noonu mooy wal bëftu ba ñëpp faatu mu walaat ko ñëpp dekki mu ne yàlla nag yaa ma saxal ceedu na a te subóor du du ma dab mukk ci nasru ba wala xasru ba wala xubóor ba maanaam bu ma duggee ci bàmmeel ba kooku alkande du ma fekk bisab pang ba ba yàlla di pang nit ñëpp gannaaw bañ dekkee génn seen bàmmeel yi mel ni ay njéeréel yoo xam ne dañoo tasaaroo kenn ku nekk yuqu sa doq jëm ca yàlla bi nga xam ne mooy ku woo nit ñëpp yo ma yaxrujuuna min al-ajdaasi ka annahum jaraadun muntasirun muntahiina ila daa'i foofu yaquuluuna al-kaafiruuna yaquulu al-kaafiruuna haazaa yawmun asiirun de waaw bis ba nga xam ne itam ci la yàlla jël nga xam ne mooy ruuxu nit ki bu joxee ndigal ki nga xam ne mooy malakul mawti naka ruuxu nit doomi diw diwa yi yaayam diwa yi baayam ma nga dëkk barab sangam waaw demal nga jël ruuxam nga léegi waaye nag bala nga koo jël damay rox ci moom ak tawat su ko defee tawat boobee nag bañ demee ba yàq ci ba ñëpp yàq ñàkk ci moom yaakaar waaw ma doog jël jëmm ji da koo yóbbu yàlla gis nga num ñëwantoo ci doomu aadama moo tax balaa jël doomu aadama sax day bàyyi ba ñëpp yàq ñàkk ci yaakaar mu daal ko yóbbu de ñu bëri seenu faatu noonu la ko yàlla defee de loolu yëpp coobaram la de moo tax mu ne ab xaytini yàlla nag ma fi saxal rabbi yow sama borom bilaa su bëri ci lurut benn alkande sax gi may sax ci aduna bu ma benn musibam aduna dal sama kaw wa nasri wala ca dekki ga a waxtu waxtu waa xamee ne waaw israfila wala bëfto ba ñëpp dekki foofu alkande waaw bu ma fa dab de waaye nag wala sri ak pang ga waxtu ngay pang ñëpp di leen dajale ci mel ni penc ma ba noppi leen atte kooku bu ma fa alkande dal de waaw maal xubar ànd ak bàmmeel bu ma nekkee ci biir bàmmeel benn alkande bu ma fekk de yàlla fa jantani bette nga ma yaar bi yow sama borom ci biir géej bi ma loo xamin hustu làqe na bii ca loolee nga bettee ma mu xóoral xóori mboolem canu kóorul ay ni de yàlla bettee nga ma yow baram ba ma nekkee ca biir géej ya yaa ma bettee loo xamee ne ci laa làqee mboolem canu kóorul ay ni canu kóorul ay yëpp li nga ma bettee yow yàlla ci biir géej gi ci laa ko amee de ci laa moo tax ma làq ko moo tax ma am canu kóorul ay ni de waaw yasarta yombalal nga li ñal ma asukura waaw cant yi ma lay cant bilaa ko xóori ci lur ma lay weddi de wóorul te yàlla na nga tàggatal li ñal ma kulu si nu fóori koo xam ne borom foñ la de yàlla waaw yombalal nga ma fu ma toll di la sant xiiwal goo ma defal rek dama lay sant waaw du ma sul njekk mukk doo ma defal njëkk ay xéewal ay teraanga rawatina bind gi nga bind bind gu rafet gi kon samay cër la koy delloo njukkal di la jaamu yow yàlla kon yaa ma yombalal cant gi bi lay cant ci lurut ma lay weddee ndax du ma sul njëkk mukk ah waaw li nga ma defal du ma ko sul mukk fokk dama koy manifeste ah waaw di ko sant samay cër de kon nag yàlla ma tàggatal képp koo xam ne borom foñ la foñ moo yiiféer boo xam ne loo ko waar waar du dugg ci lislaam koo xamee ne loo ko waar waar du gëm yàlla mukk day gën a beew day gën a réer ah day gën a bokkaale yàlla moom nga digga alquran ne wi saa xayla lahumu usjudu li rahmani qaala wa ma rahmanu an nasjudu lima taamuruna wa zaaduhum nufuran kooku mooy nufuran am na koo xam ne saa boo koy digal da ngay sonal sa bopp rek aaw da ngay yàq sa gémmiñ rek aaw xam ngeen ne la ngay wax du jaar ci nopp yi sax waxuma la nag muy génne ci beneen noppam waxuma la muy dugg ci ba xol ba ay noppam mu noonu de mu ne wóorul yàlla na nga tàggatalee ñel ma ku la si nufoori képp koo xamee ne borom foñ la de aaw ka kot yow kott kott tawajjuhiya sama dimbal sama jublu de waaw yow kott kott laay jublu jubluwuma israfila jubluwuma kilen jubluwuma keneen ah waaw waaye taw juy sama jublu lakka ñeen na la yow kott kott kott kott kott waaye nag bil mansuri ah waaw ci darajaay ka nga xam ne mooy ka ñu dimbale ka de wa bi karimin ak ci darajaay aji tedd ja de waaw ah, waaw yow yàlla ah naafiqin ka nga xam ne mooy aji wal fii sóori bëftu ba de yàlla yow rek waaw yow lay jublal ci daraja yonent bi nga xam Mansoor ndax yàlla ko dimbale bokk na ci tur Mansoor ku ñuy dimbale barke ba tey aji mu jublu ci ki nga xam mooy Israfila ka nga ka ñeenal dimbale ka de bi karimin ak ci darajaay aji tedd ja te mooy Israfila naafiqin di aji wal fii sóori la nga xam ne mooy waxtu ba ñëpp dekki de aaw yow rek lay jublu waaye ci daraja ñaar ñi ci lay jaar di jublu ci yow de yow borom bi subhaanahu aaw di taw ci seen daraja di sàkku seen dimbal de waaw waaw mu bàyyi ko ci Israafil ñëw ci Asraajila moom mi ngeen xam ne moom mooy malakul mawti malakul mawti allasi wukila bikum suma ila rabbikum turjoona la waaw kenn ku nekk ba yàlla bindee ba yàlla bindee sa nooy la la bind kenn ku nekk sa nooy la waaw lañ lay kalkin nit ku bi ko yàlla bindee am na ay nooy yu mu fi war nooy nooy yooyu bu jeexee rek alaa kulli haal mu wuyu borom waaye nit balay faatu ku ne rek day fekk wërsëgam jeex yonentu sallallahu alayhi wasallam nee na jibril ba may indil wax yu mostu indil wax yu ba dem lurut wax na ma ne ma saw xeet kenn du ci faatu lurut wërsëgam a jeex de kon koo gis mu faatu rek wërsëgam jeex na am na koo xam ne ëdduna waaw du xam sax lan mooy ëdduna ci biit yaayam ci lay faatoo dégg nga de am na koo xam ne day judd rek benn at lay am am na ko xam ne benn semaine balaa ñu ko ngént sax mu faatu am koo xam ne ci bisum ngént gi ci lay faatu am koo xam ne balaa mat a dal jàng faatu am na koo xam ne day ba ca daara ja faatu waaw gis nga dogalub yàlla de Asraayila nag moom la yàlla wakil loolu de waaw xoolal yàlla kàttanam rek benn malaka ak nit ñi nuñ toll te ñëpp mooy jël seen roogi de waaye am na ci ñoo xam ne yàlla defal na leen tawfiq Asraayila du jël seen roogi yàlla mooy rocc seen roogi ndànk waaw yóbbu ko ci lii nii jox ay ay doqi malaaka ay mbaggi malaaka ñi di wërantoog moom ci aljani waaw waaw ànd ko xeeti parfum yu neex yu gilli de yàlla nañ ca bokk am na ñoo xam ne nag ah waaye nag asraila moom la yàlla wëkkil mboolem roo yi kenn ku nekk bu sa dig jotee rek kooku moo jël ci sa roo de ala kulli haal ah boo tojoon ci niig sax dan la fekk ah fan lay jaar kenn xamut ah boo boo yoroon ah appartement boo xamee ne yaa nga ca ah, waaw dafa bëri ay néeg lool bëri ay salle de nga dugg ca salle de ba ca gën a waaw féetee wala ba gën nekk ca biir de defe ne du lu fa fekk kook dan la fa fekk de kon mu ngi noonu <laughs> mbirum yàlla la ali bi asraila man salama ila siwaaya baqiyan wa alama mu ne yow sun bot ali yow yàlla mi aji kawe maa ngi lay ñaan waaw bi asraila ci darajaay asraila sux yàlla nag ma màngal man képp koo xam ne salama am toojkat la ila siwaaya mu jëm ci kurun man baqiyan ma doon ku fee sax man sëñ tubaa waaye nag waxal la maa doon koo xam ne danan fang yàlla yow mi aji kawe ji ba dara mënul laa tiim dara mënut yegg fa yow aaw te yaa gën kawe ñëpp maa ngi lay ñaan ci barke Bani Israa'iila képp ku jog di ma tooñ nag ma ko màngal dàqal ma ko mu jëm ci feneen fu bokk ak man waaye yàlla nag ma may ma di fi sax aaw Israa'iila bu mu jël sama roogi mukk nag ma may ma di fi sax sax goo xam ne aaw dama naan fang de mu ngi noonu doon yàlla ali yow yàlla muy aji kawe ji maa ngi lay ñaan bi ansraila ci barkeb ansraila suux yàlla na nga màgg man salama képp koo xam ne ab tooñkat la ilaa si waaye mu jëm ci kurun man de kuy ab tooñkat rek yàlla màgg ko mu daw jëm ci kurun man de aaw baqiyan ma doon ko fee sax su ko defee wala ma doon koo xamee ne ku ne fàng la aaw koo xam ne ñëppay xam ne kii aaw doonut koo xam ne dafa faatu de mi ngi ci adduna mu ngi fépp si ta yàlla na nga dolli amaani sama kóllite warida ak ngërëm wa niama ak xéewal yaa baqiyan yow yàlla mi fee sax ta doo faatu lay sa yesaal yow mi nga xam ne doo dañ mukk mu ne maa di aji xéwale yàlla yàlla na nga dolli sécurité gi ma am kóolute gi ma am ah gi ma am ci waxtu ne yàlla na nga koy dolli waaye ngërëm gi ma am yàlla na nga koy dollu samay xéwal yàlla na nga koy dolli ci waxtu ne yow mi fee sax te doo faatu yow mi nga xamee ne doo dañ mukk di aji xéwale xéwal gu jàmm am yaa ko ko jox ngërëm lu jàmm am yaa ko jox sécurité gu jam am yaa ko jox kon nag yàlla na nga dolli sama sécurité dolli sama ngërëm dolli samay xéwal yow mi nga xamee ne doo dañ mukk di aji xéwale ah te yaa sax te doo radata delloo nga la waaw mawti sama faatu li ax daa yi képp ko samay kaw noon xat an ci lu dog ci lu amul benn werante amal wa bàyyi ci xatu mbas ma de yaa sami a sawte yow yàlla muy aji dégg kàddu aji ñaan ji de yàlla dee gi nga xamee ne moom laa waroon a faatu ah da nga koo jëlee ci man man dootuma kuy faatu su ko defee noonu yi ma génnoon yëpp ma ca tukki ba nga jël dégg këpp ko seen kaw ñu far dee ñoom ñëpp fu ne dee nañ sàppi nañ xewi nañ sëñ Tuubaa bis bu ne mi ngi gën di xew ñoom bàyyi nañ fi bàyyi ko nañ ci waaw waaw ci saahir bàyyi ko nañ ko ci baatin de ñoom ñëpp kenn xamatul leen kenn xamul seen biir xamul luñ leen leen lu baax sëñ Tuubaa nag heure bu ne ñu ngi nettali lu baax di ko ñaanal ci waxtu ne de aw ta mu ngi fépp de kon yàlla delloo nga samag de këpp ko ci kaw noonu ci lu amut benn sikk sàkk ak weerante noonu nga ko defee de xaat mi nga xamee ne mooy atum mbas ma de waaw ndax atum mbas moom amoon na njaarim mu ngi noonu am na at moo xamee ne mbas mi duggoon na njaarim waaw ba ñenn ci taalibe yu bari sax moo leen fi jëlee de ci taalibe bi sëñ Tuubaa yi waaw du tey sëñ Tuubaa diyanteeg boromam taalif ci ay xasir yoo xam ne wax ne suñ borom nangul na ko de waaw daqal na ko mboolem mbas mi musal ko ci ay taalibam ak njabootam ba duñ dee ci feebaru mbas mukk waaye nag am na mbas mu fi daan jaar ci jamono yu yàgg xeeti feebar yu bon bon daan na fi jaar loolu jamono sëñ Tuubaa ak jamono yu jiite yëpp fi am lu mel ni xeetu corona bi nag bokk na corona bi kon nag radata delloo nga mawti sama faatu li daa yi jëmee ko ci noon ya ci lu dog amul wa ba xatu mbas ma de boobu nga jëlee sama dee këpp ko seen kaw ñoom ñu faatu ma des fi te loolu at ma nga xamee ne ca la mbas xewee woon ba mu ñëwee bàyyiwu fi kenn aaw pes mi dafa ñëw ñoom ñëpp ñoom noon yi ñi ma woon ñëpp yaa samia sawti yow yàlla mi nga xam ne aji dégg kàddu aji ñaan jee aaw ko yàlla musal ko ci moo ko ci mu di ko sant fii ak yàlla na nga saxal xayaat yi sama dund aaw bii ci barke Israila masroora mbir moom mooy borom saata gaay wal taq ni te yàlla nag ma fegal alxisaaba li nga xamee ne mooy ngay kalkin sama jëf wal xuruura ak waru de waaw yàlla yàlla nanga ma saxal yàlla nanga ma saxalal sama dund ci barkeeb ki nga xamee ne mooy israfila su ko defee ma doon koo xam ne damay saata gaay di bég di mbégte koo xam ne ci heure bu ne ci mbégte rek ci lay ci lay ci lay dëkk kooku muy masroor waaye yàlla na ma fegal waaw yow yàlla yàlla bul kalkin sama jëf waaw yàlla bu ma waru itam ni ma def ne am naa ko wala may nga ma ko lépp yàlla bu ci waru topp de ndax ni dana defe ne am na ci yàlla nangam te fekk ak waru rek ko topp de moo tax ne aqi yàlla nga ma sax yàlla nga saxalal xayaati sama dund bii ci barke Israila masroora mbir moom may borom mbégte de wal taqini yàlla na ma fegal al hisaab hisaab wal qurura ak waru de fegal ma ngay kalkin samay jëf wala waru di ma ci fekk lépp musal ma ci de atiniya yàlla nag ma nag ma dikkee daare ni aduna ak alaxira xayra xasanaat ngeen ci maanaam rafet rafet de wajaal yàlla nga def bii ci barkeb ki nga xamee ne mooy Israa'iila kulliyati sama lépp mustansanaat mbir moom mu doon lu ñu rafetlu de yàlla jox nga ma aduna ak alaxira waaw yàlla nag ma ci dikkee aduna samay lépp na doon ay rafet rafet àlaaxira itam boo xoolee sama téere jëf sama lépp na doon ay rafet rafet waaye yàlla na nga def sama lépp mu doon lu ñu rafetlu de lu bokk ci man même xataa samay taalibe sax ak képp koo xam ne man Sëñ Tuubaa yaakaar naa ngir ma xëcc lu nga def léppam buñ ko xoolee téere jëfam mu doon lu ñu rafetlu de buñ ci gis lenn loo xam ne dalay naqar yow yàlla buñ lenn loo xam ne doomu aadama bu ko xoolee ci téeram rek dana ko mitti dana ko naqari da fekk passé na kon nag aatini yàlla nag ma dikkee daare ne adduna ka laqira xayra sanat ngeen ci ay rafet wajaal yàlla na nga def bi ci barkeb xasra ila kulliyati sama lépp mustaxsanaan mbir moom mu doon lu ñu rafetlu de yàlla na def ci barkeb ki nga xamee mooy xasra ila sama lépp doon lu ñu rafetlu de nga xam ne du mu ci gis lenn loo xam ne daf may naqari de ah waaw yàllaahu yow yàlla woo naa la yaa raxmaanu yow yàlla mi nga xam ne kon bépp mi néef caadu naa yaa raxiimu tey aji yërëm ko soob ci àlaxira yaa man yow yàlla yow yaay ki nga xamee ne danaa njëkkantoo jëm ala ridaay ci li nga xam ne mooy sa ngërëm de yàlla woo naa la yow mi nga xam ne yaay xéewalaa kon ñëpp ceeduna a ah, lu waay am ceeduna raxmaana la ko jox nit itam bu duggee aljana ëllëg yomal xiyaam rahima ko defal ci ngëneelam ci mbaaxam waaye raxmaan moom moo gën a yaatu mooy xéewal yi nga xam ne yéeféer ñeeg ñëpp ceem de mooy kati yàlla yeeg ña dun mooy yàlla ñëpp ceem de yàlla raxmaan la leen di def de xéewalam ceeduna lépp ndax moo leen warlul dund gi kon rahim moom a ñi nga xam ne ñoo ko doon jaamu ci kaw suuf mu di leen teg ay nata ñi de muñ ñooñu buñu demee ca delluwaay bu ëllëg yomal xiyaame moo leen cee tàbbal yàlla yàlla boo leen ci ñaari yëpp mu ne yàlla yow yaay ki nga xamee ne heure bu damay njëkkantu rek di jog waaw di buur rek di jëm ci li nga xam ne mooy moom nga gërëm de waaw lakka ñee na la yow kott kott taw jontu sama jublu bi jaayal mu tabaa ci dara jaay ka ñu tànn ka waa jaay ansara ila ak dara jaay ansara ila kon nag jut yàlla na nga may lii ñal ma bi tiba dañoo xas xam ko de bi tibaay ci ak tànn de maanaam nag ma may ak tànn maanaam ma doon tànnee fu ma nekk yàlla yow rek lay jublu yow rek lay wéetal waaw ci daraja yonent sallallahu alayhi wasallam saa bu waxee yow rek lay jublu ci mooy day jaaree ci yonent bi wéetal gu mu wéetal yàlla manut koo def lulu rek dafa jaaree ci sunna moo tax mu ne ko yow rek lay jublu yow yàlla ci daraja ki ñu tànn ka ak daraja Azraila kon nag nag ma may li nga xam ne moo di ak tànn yow borom bi subhanahu wa kon mel na ni li nga xam ne moom la tënkee Azraila foofu la yem ko tàmbale woon ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Abubakarin ak Ousmane ak Aliyu Mikaila ah, ak ki nga xam ne mooy Israfila ak Asraila ak seen seex ba di Jibril la kon ñoom ñëpp waaw kenn ku nekk ñaan na yàlla ci darajam yàlla may ko de ndax malayka yi yàlla da leen jax sante ak mbindeef yi maanaam liggéey bi ñuy liggéey dafa jëm rek ci mbindeef yi ñoom la yàlla dénk maanaam wàllu mbindeef yi Mikaila Jibril waaw ah, Israfila Asraila waaw ah, ñu ngi noonu de léegi nag mu euh, mu commencé xasida goo xam ne da koo tuddee wa rabbuka yaxluqu ma yasha wa yaxtaaru yàlla moo wax ci suuratul ne bind nekkul ci loxo doomu aadama tànn nekkul ci loxo doomu aadama yàlla mooy bind lu ko neex waaw di tànn lu ko neex tànneef naam nekkul ci yéen maa kaana lahumul xiyara subhaanallahi wa taala maa yusrikuuna de kon yàlla mooy xool lu ko neex bind mooy xool lu ko neex tànn ko waaye mooy xool ku ko neex lam tànn mu jox ko ko de kon wara bu ko sa borom yàlla xu dana mu bind maa saa lu ko neex ko masiyaatu laa la loo gis mu feeñ rek yàlla ko feeñal du doomu aadama waaye yaxtaaru mooy tànn lu ko neex waaw teg ko fu ko neex wala mu def ko lu ko neex koo dégg ñu diw président la wala diw toog na xalifa général wala nangam loolu yëpp coob rek yàlla la waaye bu neexoon yàlla sax waaw étape boobu lool sax du ko fekkee balaay loolu di am rek fekk moom wuy ji na boromam waaw waaye yàlla bu fi bàyyee bañ ne kat président la wala xalifa général la loolu yëpp yàlla yàlla ko fi bàyyi den ndax moom la neex ah, waaye bu neexutoon yàlla rek ah, kon moo ko tànn moo ko sàkk moo ko tànn moo ko def loolu loolu kenn mënu ci dara xataa président yi nga xam ne yu dëng lañ sax toog bañ fa toog maanaam yàlla la neex de ah, wasiqtu billahi alkarim alakrami wa jaa amaarumtu wa maalam armi wasiqtu dëgërlu naa billahi ci kàttanug yàlla alkarim moom muy aji tedd al akrim moom mi ko gën a tedd moom mi nga xam ne al akrim mooy ki gën a tedd wa jaa awta dikk na maarumtu tu nga xamee ne moom laa doon sàkku ca moom wa maalam arumi ak la nga xamee ne sàkku mu ko woon sax ci moom de xam nga wara bu ko yàlla xumaay sax waxtaaru tawhid lay jàngale ndax buñ ne laa yow mbindeef mbaa xam nga ne yàllaay bind nga ne waaw xam naa ko ñu ne la ndax xam nga ne yàllaay tànn nga ne ah, waaw xam naa ko kon nag dëgërlul ci yàlla rek moo ci war a topp de moo tax sëriñ bi bayit bu njëkk bi mu dal di ko tëjee comme ba ma xamee ne yàlla rek bind mooy tànn lu ko neex kon nag dëgërlu na ci kàttanu yàlla nga xam ne ku dëgërlu ci moom kenn mënu laa daane kenn du la daane mukk yalla bi nga xam ne mooy ku tedd waaye mooy ki a tedd waaye lépp lu ma doon wut ca moom di ko sàkku gannaaw bu ma dëgërloo moom yàlla jox na ma ko ak la nga xamee ne sax bokkutoon ci la ma doon sàkku yàlla joxaale na ma ko sëriñ bi saa loolu ba noppi joxaale ko ko woon wasextu dëgërlu naa bi lay ci kat nug yàlla alkarimi moom muy aji tedd al akrami doon ko a tedde waja a ñëw na maarumtu la ma doon sàkku ca moom wa maalam arumi ak la nga xamee sàkku sàkku mu koon ci moom de rabbiya sama borom rabbaani yaral na ma boppam bi xayri waxami ci lu benn xeeti def le waaw xindal xindaata booba maa ngi fa noon ya waaw wax di ya man kon man kenn dong wéet fa ñoom de ay ya mu xami bu mu ci nëbbu seen biir de yaa yàlla yaral na ma boppam tarbiyal na ma boppam ba ma nekk ci biit noon ya bépp jukku joo xamee ne yàlla taamut ko ci nit ki din na ko ci man de waaw ci lurul sikk sàkk ci lurul ak def le de yàlla nii la ma ko defee de te booba maa nga ca noonu wéeg seen biir nëbu seen biir man rek maa fa doon ab julit ñoom ñëpp moom mi aji yara ji rabbaani yar na ma ah waaw bi xëyri wax amit ci luru def le def le mooy sikk sàkk wax gi ma ko wax amul def le nekkuma jékk nekk ba yàgg rek am lu may sikk waaw ne yàlla ma ko def wala deful ma ko yàlla moo ma ko def de loolu amul sikk sàkk indalee daa booba maa nga fa noonu wax di man kott aye moom xam bu mu cig nëbbu de booba maa ngi ci biir noonu nëbbu seen biir teral na ma bil mustafa ci dara ka ñu tànn ka al mukarami kada kuñ teral al muqaddami kada kuñ jiital wa artaji ta dana ma yaakaar taqadumi sama jiitu de yàlla moo ma teral ci darajaay Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di yonent bi moom mi nga xamee ne mooy ku yàlla teral léppam mooy ku yàlla jiital de maa ngi yaakaar ci sama borom aaw mu jiital ma de ci darajaay yonent sallallahu alayhi wa sallam aaw jaada tabina lii ñeel ma moom yàlla bi ahli badrin ci darajaay waa ahlu badar bi aylam ma doon ki nga xamee ne aylam laa muy géej waraada yàlla na nga tàggata lii ñeel ma alxeda samay noon yëpp wafakata yàlla na nga xob bi wala mi sama jéngire yàlla may na ma ci darajaay waa ahlu badar ma doon aylam mooy koo xam ne ku ñëw rek ci man lay tànqee bu dee xam-xam xam-xam ku ñëw rek léegi ci man lay aw tànqeera aylam tur la ci turu géej rek mooy lu bëri rek ki naay la ci lu bëri mu ne yàlla may na ma ci dara darajaay waa ba badar ma doon a aylam doon géej maa ngi koy ñaan aw yàlla mu tàggatal ma samay noon yëpp te jéng gi nga xam ne moo moo ma tënk ba maneeku ma ak sama borom ci jaamu ko yàlla maa koy ñaan mu dajjil ma ko ba ma mën a maneek moom ba lépp loo xamee ne noonu ñu ngi ca loolu sama xel du ca nekk sama xelaat du ca nekk te du ma xool jëm ca mukk kon jaada tabina lii ñeel ma bi ahli badrin ci darajaay waa ahlu badar bi aylam ci li nga xam ne mooy aylam ma doon li nga xam ne mooy géej waraada moom yàlla tàggatal na lii ñeel ma alañ daa samay noon yëpp wa fakkatte moom yàlla xobbil na ma li nga xam ne wala mi moo di sama jéngre waaw kon kookoy aylam de buñ na aylam mooy teen boo xamee ne bu yaatu la te bëri ndox buñ na aylam mooy géej waaye daal kinaay la ci bëri rek kafa yàlla na nga fekk biim ci darajaay waa ahlu badar xan nii mu sari ma sawee taasumi borom lu ña wajaadata yàlla na nga may lii ñeel ma bi jaayim ci seen daraja ñoom wàllu badar bi lan sami la gën a màgg borom subhaanahu wa taala maa ngi lay ñaan nanga ma fegal mboolem ñi nga xamee ne dañuy rëy rëylu sama kaw ñëpp musal ma ci ñoom fegal ma leen dàqal ma leen ñu sori ma yàlla nag ma may ci darajaay wàllu badar la gën a màgg de te loolu saa bëgg wax mooy ismulaay ansam yaquudu dana womata li jëmee ci man maxtaara la tànnal na ma ko lii ñeel ma min ni ami ci laala la neex ma amul morom moom yàlla xayrul munhim mu muy ngën ci aji xéewale jëlee suñ borom daf may womatal lépp loo xam ne tànnal na ma ko ci ay xéewal lu mu mën a doon rek ak xéewal mën a nekk rek yàlla dana ma ko tànnal dana ma ko womatal jox ma ko de waaye da koy dogal ci baatab kun rek mu daal di amee noonee waaw te da koy def ba faw nag est-ce que moom yàlla moom nga xam ne waaw kuy xéewale moo ci gën de ni nii mooy xamal na ma waaw solo na ma waaw xabara nii mooy xamal na ma bi na ba in xibaar boo xamee ne mun kati a fustutu fu naa bii ca yàlla a musa hahin mbir moom ma doon koo xamee ne ku ñu wéral la a muktati waaye doon koo xam ne na nabutu la nee na yàlla espéré na ma xamal na ma information bu rëy nabba u moom duñ ko wax lu dul xibaar bu rëy boo xamee ne aaw ba ko yàlla xamalee kooku na butu nëbbutu kenn du xam xibaar ba moo tax mu ne yàlla xebal na xamal na ma xibaar boo xamee ne bu rëy rëy la waaye boo xamee ne du feeñ de dafa butu de kon nag tuufu naa ci xibaar boobee yàlla xamal ma ma doon koo xamee ne aji nëbbutu laa waaye doon ko xam ne ku ñu wéral laa waaw doon koo xam ne day sennal xibaar kooku aw yàlla nañ ci yàlla musal bëgguñ nit ki lu mu xam rek am na ñoo xam ne information waaw bu ñu xamee ne xibaar bu rëy la rek saa bu toqee seeni nopp rek si siwal nañ ko ngir xibaar ba rëy waaye am na ñoo xam ne xibaar lu muy rëy rëy wallahi lansim fii ba illaa yumil bax si duñ ko wax mukk kon xabaar nii xamal na ma bi nabi in ci xibaar boo xamee ne mun katimi aji nëbb la fustu tuufu naa bi ci xibaar boobee xamal ma musaxaxin mbir moom moo doon ku ñu wéral mun muktati mbir moom muy aji nëbbu waaw sennalkati xibaar yëpp dañuy wax ne mooy ñu feebar doonu ñu kon nag sëriñ bi nee na moom xibaaram yëpp waaw yi ko yàlla xamal te mu doon xibaar yoo xam ne yu rëy la du ko wax kenn waaw ndax musaxaxan la de doonut sëqim sëqim yi rek mooy ñi ràgg xol ñoom ngay wax ci seen nopp dara rek mu toq mu toq seen nopp waaw seen xol yi wow yaay tax duñ ko duñ ko nëbbu mukk dañ koy feeñal tasaare ko siwal ko lawoo ñeel na ko moom yàlla kottu kottu su kóor yi samay cant abadat foofu bi xalimi ci samay xalima wal xal bi ak xol bi de wal gis mi ak yaram bi wasaalata dañal na moom yàlla alimi samay métti de yàlla ñeel na ko moom dong dong samay cant def faw di ko jaaree samay xalima yii may bindee moom laa koy sante moom yàlla sama xol bi may xalaatee sama xol bi nga xamee ne mooy génn li nekk ci xalima gi ak sama yaram wi nga xamee ne saa bind rek day waaw waaw def li ñuy wax soxor muy yëg-yëg waaw yëg bi yaram wi moo koy joxe waaw sunu borom moom it dañal na ci man lépp loo xam ne xeeti métig la xultu wax naa man sëñ Tuubaa wa maa sakaktu ta sikk sàkkuwuma fii tilka li ma ci gii wax ma wax de banda firaaxi gannaaw ba ma teqalikoo gannaaw ba ma teqalikoo maxtara la gaaroon na ma min alimi ci ay métit de waaw nee na man sëñ Tuubaa wax naa ji wax te aw ma ci benn sikk sàkk gannaaw ba nga xamee ne natt yu ma yàlla tegoon yëpp ñi nekk ci man waaw gannaaw ba ma teqalikoo métit yooyu yëpp nee na wax naa lii de na yàlla moom rek lay sant samay xalima ak sama jëmmu ak samay xol yëpp ndax dañal na ci man samay métit kon nag lii wax gi ma ko wax wax ju wér la te maa ngi koy wax gannaaw ba nga xam ne yàlla teggeel na ma métti yeeg natt yi a gaaroon yëpp teqali na ko ak man de ah mu jaawiran mbir moom muy aji dëkkaale li rabbi ñeel sama borom al moom muy aji teral ku ko neex wala nabi ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam al musafa karikuñ nangu am ti noom al mukarimi karikuñ teral gannaaw ba ma dëkkaale ak sama borom mi nga xam ne mooy mukarim mooy kii teral ko ko neex waaye dëkkal dëkkaale ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne mooy nabiw ku yàlla jox xam-xamu nubuwa mooy ki nga xam ne mooy ku yàlla nangu am ti noom mooy ki nga xam ne mooy ku yàlla teral kon dafa bëgg wax na rek gannaaw ba nga xamee ne yàlla teggi na ci man lépp loo xamee ne nattu yooyu la aawa damay ne rek wéy di ko sant ndax léegi damaa dëkkaaleeg moom dëkkaaleeg yonente salaay salaam ajaabani wuyul na ma sama ñaan alhaadi yàlla mi aji gindee ji alali tey aji kawe ji de muallimi kay aji jàngale de ji aw alwaxidi tey kenn almuxni kay aji doyluloo ku ko neex moom ani taalimi walis xam lu ko de waaw nee na nga xam ne ku gindee ko ku ne moo la gindi nee ñaan yi ma ko doon ñaan yëpp wuyu na ma accordal na ma ko nangul na ma ko moom muy aji kawe ji waaye moom ba tey muallim la yàlla mooy muallim muallim yëpp ñëpp moo leen jàngal moom yàlla xataa ba ci jibril sax lam xam yàlla koo xamal yàlla lépp lum sàkk xam-xam bam yore ko ci yàlla la béy koo de moo tax nga diggi sax ñu naan la képp ku la jàngal ween xaraf rek kooku mooy sa borom ah waaw nekkul sa borom bi la de eh, waaye dëgg-dëgg secret jàngale moom kooku ci yàlla bàyyi ko de bu neexoon yàlla ñëpp di jàngale te kenn du xam dara bu neexoon yàlla mu rocc xam-xam yi nekk ci dënn yëpp na xam loolu waxoon yonent bi wa maa utiitum minal ilmi illaa qaliilan joxuñ la ci xam-xam lu lu néew te bu ñu neexoon sax ñu jëlaat ko kon ken ku nekk xam-xam ba nekk caw bu neexoon yàlla mëriñ ko ko de waaw kon yow lu muy tegtal mooy xamoo mënoo xam kon xam-xam ba ci yàlla lay bàyyi ko de moo tax mu ne yàlla muy aji gindee ji tey aji kawe ji tey aji xamle ji tey aji jàngale ji nee na ma sama ñaan moom yàlla mi nga xam ne mooy kenn ku wéet mooy kii doyloo ku ko neexu moom ba du jàng dara am na ñoo xam ne wallahi jànguñ dara waaw ñi jàng sax ñool ñoo a xam de kon yàlla leen xamal am na ñoo xamee ne mooy la sëñ Tuubaa ne wala yaqulu ma arum ilman bila ta'allumi yàlla daf may womatal xam-xam yoo xam ne du ma dem fenn di sol samay dàll di ko jàng ji de kon am na ñoo xam ne maanaam ñooy gën a xam ñi nga xam ne dañoo jàng de yaqulu dana womat li jëme ci man al muxni yàlla muy aji doylu loo ku ko neex fa moom bila ta'allumi ci lurut ak xamlu de mu ngi noonu dana ma womatal naa fi ilmin gën kaa jëriñi ci xeeti xam-xam yi musibaan mbir ma muy aji dàqali su limi ñeel sama lëndëm de nee na yàlla mi nga xamee ne mooy aji doylu loo ko ko neex fa moom nee na dana ma womatal xam-xam xeeti xam-xam yi ci gën a jëriñe lay womat di ma jox waaw te du ma dem fenn ca benn nit naan ko xamal ma jàngal ma li jàngal ma li nee na yàlla moo ma koy womatal rek kon mu ngoog am na xam-xam yoo xam ne yàlla moo koy xamal nit ki moo tam ne yàlla muy aji doylu loo ko ko neex dana ma womatal gën kaa jëriñ ci xeeti xam-xam yi ci lurut benn xam lu ji de du dem fenn di ko xam lu ji waaye lépp loo xam ne xeetu lëndëm lu nekk sama xol yàlla da koy dindi waaw ndax xam-xam fépp fu muy nekk rek foofu lëndëm du fa nekk ndax xam-xam leer la te leer rek lëndëm mënuñee bokk rek fokk leer ñëw waaw góor fa rek wala benn lëndëm ñëw góor fa rek waaw kon mu ngi noonu xam-xam leer la sakartuhoo dana ko sant moom yàlla bi jëse di ci sama yàpp yaram wa marqami ak samay xalima waaw wa yaxsini wa yaxsimu ni te dana ma musal moom yàlla sarmadan faw min saxami ci lépp luy ràgg-ràgg danaa ko sant ci sama jëmmi yaramu bopp de ci laa koy sante moom yàlla waaye di ko sant ba tey ci samay xalima moom yàlla moom nga xam ne musal na ma ci lépp loo xam ne xeeti ràgg-ràggale na ngeen xam ne danaa ko sama yaram ak samay xalima te dana musal ci lépp loo xam ne feebaru xol la ko ku may saxam ràgg-ràgg us nii dana ma tagg alal fard muy aji wéet waaw alwahid waaw nga xam ne kenn la de alalam doon koo xam ne mooy ku siiw koo xam ne bokku tuddee ñëpp xam ko man mooy ki nga xam ne na àllama xamal na al insaana doomu aadama maalam yéex ni mi loo xam ne ko woon nee na danaa tagg man sëñ Tuubaa yàlla mi tudd fardu ak wahid alxalam aw tur yàlla yi nga xam ne kenn du ko ca fekk mooy ku wéet mooy koo xam ne kenn dong la waaye koo xam ne boo tuddee turam kenn du làcce aw nit ñi boo ne yàlla rek dañoo xam ne benn yàlla rek am ku dof dof loolu moom xam na ne benn yàlla rek am kooku mooy alam boo tuddee turam rek kenn du ko làcce ñi ki boo noonu Muhammad mën nañu gam-gam leen wala nga ne ahmadu ndax ahmadu yi bëri nañ ci réew mi tur woo tudd rek am na ñeneen ñu ko tur léeg-léeg nga tudd tur sax ñu ne la ndax nangam menn ngay wax ah Moustapha menn ngay wax ah lisan <laughs> sakartuhu bi jasadi wa marqami wa sarmadan yaxsumuni min saqami waaye usni ala al fardil wahidil allami man alama al insana ma lam yaxlami yàlla mooy xamal doomu aadama loo ko ne xamul koon jàngo ci suratul xalaq muy saar bi nga xam ne moo njëkk a wàcc suñu borom ne allama al insana ma lam yaxlam ñoo xamal doomu aadama loo xamee ne xamul koon kon mu ngi noonu yàlla moo xamal doomu aadama moo xamutoon moo tax sëriñ bi ne usni dana ma tagg alal fardi yàlla muy kenn al wahid kay aji wéet al alami tey doon ku siiw ne foo ko tuddee ñëpp xam ko Ah, waaw man mooy ki nga xam ne naa la ma xamal naa alinsaana doomu aadama la yéen bi loo xam ne mooy xam-xam bi nga xam ne kenn du ko jàng ci téere nee na waaw suñu borom subhaanahu wa mooy ki nga xam ne moo koy xamal doomu aadama bi de waaw mu ngi noonu de ba tey boo xam ne aataani ya dikkee na ma almumitu yàlla muy aji faat ku ko neex bax da mas ami gannaaw waaw tiitaange mi nga xam ne tiital naa ko gannaaw sama tiit gi nga xam ne tiital naa ko muy tiit gu tar yàlla dikkee na ma siyaata gis min wérug yaram at asaala goo xamee ne xat asaalal moo dañal sax sa ami sama yokkot de yàlla muy aji faat ku ko neex waaw nee na gannaaw ba nga xamee ne tiit naa tiit gu tar loolu mooy tukki rek bi mu nekkee ci tukki bi tiitaange mu rëy nee na dama ko tiitoon waaye yàlla jox ma wérug yaram wérug yaram googu mu jox moom yàlla lépp loo xam ne xeetu yokkot la ndax nit ki saa bu rek mën naa yokkot saa bu ko ay noonam sonnalee rek ba mu tiit ca mën naa yokkot de waaw mën naa topp seen bëgg-bëgg te mooy yàlla waaw mu ne nag yàlla mi ba ma joxee wérug yaram ba nga xamee ne kattan gi mate na ko lépp mate na ko nee na moo tax nag loolu moo dañal ci man yokkut heure bu ne rek lu may tiit tiit du tee sama tiit yëpp ci yàlla koy jëmale de waaye du ma du ko jëmale ca noon ya kon ataaniya dikkee na ma al mu miitu yàlla muy aji faat ku ko neex de ba da mas ami gannaaw sama tiitaange mu tarma aaw dikkee na ma nag si xaata gis min wérug yaram woo xamee ne xat moo dañal de sa ami li xam ne moo di sama yokkut de am kooku mooy tiit mu rëy rey mas am dana tekki ba tey maanaam buñ na rëjulun waaw mas am mooy saaxa mooy yooxu na koo xam ne dafa tiit ba yuuxu tiit mu tar dal moo xam ne mu kéemaane la kooku mooy mas am de waaye fii lu fi tekki rek mooy a ah, mooy suxru muy ak tiit waaye du fa tekki baatab sax guy tekki yooxu kon yàlla muy aji faat ko ko neex dikkee na ma gannaaw ba nga xamee ne tiit naa tiit mu tar yàlla dikkee na ma wéeru yaram goo xamee ne moo dañal ci man lépp loo xam ne xeetu yokkoon la de suñu borom musal na ma subhaanahu wa taala ngir wéer gi yaram gi nga xam ne moom la ah, moom la roof ci man de